asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi njabootuk lislaam jotaat na ndigal ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér mu yabal fi njaboot gi nga xam ne ku leen gis xam ne mooy ñoom ñooy moom ñu fas yéene yëkkati ay kàddu ci aw làmmiñam ci ndigalam ki ko jiite nag di sëriñ màmmoor Mbacke moom Cheikh Mahamadul Fadal mu ànd ko ak mbooleem ku yëngu ci wàllu daara ci alxuraanul karim ci dëkk bii di Touba ak li ko wër ñu fas yéenee nag wéye ndigal loolu nga xam ne sëriñ bi joxe na ko tam war a doon àllarba di ñeenti fan ci weeru tubaab yemoo ak juróom-ñetti fan ci weeru rajab ndigal loolu moo tax sëriñ Mamor ànd ak bokkam yëpp teew fii nga xamante ni bii moo di kër sëriñ Touba gi jàkkaarloo ak jumaa ji ñu fas ko yéenee jox kàddu gi mu jot li ñu ndigalul Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa lool yi su noppee ñu jox kàddu gi Serigne Xaadi Jaxate mu gën ñu ko faram-fàcceel gën ñu koo yaatalal kon ñun ñëpp ñu maa déglu Serigne Maam Mor Mbàkke mu Cheikh Mahamadul Fadal auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi wa ala alihi wa bokki taalibe yi fi daje yëpp bokki jullit yi ñuy déglu yëpp noo ngi jëkkee jéggalu ci kàddu yi ñuy yëkkati ci kanam suñuy kilifa te ndigal rekk tag na ko noo ngi nuyu mbooloo mi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen jottali ay kàddu yu bàyyi ko ci kilifa gu tedd gi Cheikh Mouhamadoul Mountakha ayadahu llahu wa nasarahu wa adama izzahu wa karamatahu bi barakati xadimil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam noo ngi fi toog ànd ak sama mbokk yi ma daan àndal di fi ñëw sëriñ bi boole ma ak sëriñ Xaadim Mbàkke doomam ak sëriñ Muntaxa Mbàkke ñu ànd ak mboolem ñi nga xam ni ñoo yëngutu ci alxuraan ci Tuubaa te mbooloo mi sosoo woon ci ñoom njàng mi soso woon ci ñoom ci ndigalul Serigne Saliou te moo di ñi nga xam ne ñoo jiite woon rabitatul madaris alquraaniyya fii Touba ka ca jiitu di Cheikh Mamadou Basir moom Serigne Fallilou yabal na doomam sëñ Moustapha Mbacké mi ngi ni toog ak sëñ Mouhamadou basiir mu sëñ Abib Mbacké mi nga xam ni moo jiite mbooloo moomu te at mu jot ñu di ko ànd ak moom ak rabitatul yi ñi nga xam ne ñoo ci yëngutu sëñ xaali jaxate jiite leen ak ñim àndal ñëpp ak waa Muqaddamatul Xidma gi nga xam ni biir jumaa ji nga xam ne ci la liggéey bi tàmbalee ñoom itam teew nañ nga xam ne fi la liggéey bi tàmbalee jëm ci jàkka yeeg jumaa yeeg daara yëpp ñoom it teew nañ si tur ci turu si sëñ Abdou Lahad ak ñim àndal ñëpp ndaje mi nag li ko waral gannaaw bu sëriñ bi nuyoo bokki taalibe yi ak bokk jullit yi sant leen gërëm leen ñaanal leen li ko war a dara lu may li nu baaxoo def at mu jot te du ko def ci ñaari yoon ci at mi muy weeru muharram ak weeru rajab dajaloo jàng alxuraan fàttali ko yàlla jéggulu ko sàkk ay sarax jàng alxuraan ñaan jàmm wàcc ci réew mi sëriñ bi nag lan li mu jublu mooy rekk li mu yéene jullit yi yéene ko taalibe yi yéene ko àdduna sépp te mooy jàmm akuk dal ak tawféex ndax alxuraan ji muy jàngalu waxoon nañ ko fi du caa génnu dañuy bàyyi ba bis agsi rek mu sàkk nañ jàng alxuraan alxuraan moom ak sëriñ Touba ak Touba ak waa sëriñ Touba ñoo dëkk te mosuñoo tàggoo bis bu set li ñuy wàcce ci ay kaamil ci daare kaamil yi ak li par benn yi di wàcce kenn xamul nu waaye nag war nay am bis bu jamono lëjee wala jamono am ay xat-xat sëriñ bi daal di am pas-pasu bëgg taalibe yi am jàmm bëgg julliti am jàmm mu woote am njàng ci jumaay Tuubaa ji nga xam ni borom jumaa ji li mu wax ci alxuraan dara jël jàng alxuraan ak lañ ca mën a amee ñun ñëpp gis nañ ko te rawatina jamono jii nga xam ni nag ñaari yii soxla nañ ko lool muy mucc ak xéwal yu baree baree bare te Sëriñ Tuubaa wax na ci xase xasidaam yi ay wax yoo xam ne koo dégg da xam ne bu sëriñ bi jàngaloo alxuraan yo loolu rek la ci jublu sëriñ bi wax na ne jàng alxuraan ribxul lesi yatluu ko yaa quraanu ribxu fatan bi al aqraanu kii jàng alxuraan moo xam lu muy liggéeyal moo xam lu muy def alxuraan kii jàng alxuraan bokk du ca bokk ka ko jàngut alxuraan bénéfice ba mu ciy am ak xéewaleem ci am du bokk ki jàngul alxuraan ñaar yi itam di ñaar yoo xam ni jamono yi ñu toll nit ñi soxla nañ ko muy kóolu kóolute te mooy sécurité ci jëmm yi sécurité ci mbooloo mi sécurité ci lépp ak kaaraage ñaar yi soxla nañ ko bu baax a baax a baax sëriñ bi nee na ñaar yooyu itam sëriñ bi wax nañu ci jàng alxuraan nañ ko mën a amee amaanu man yettul kitaaba daa imu wala yalumuhu dawaa man laa imu kuy jàng alxuraan ku ne sa kóolute day gën di sax sa sécurité day gën di sax te kenn du la fekk ci la ngay def di la yedd kon loolu jar na jàng alxuraan barakatul quraani tahmil qaari'a mimma min al balaa yakunu taari'a jàng alxuraan day fegal ki koy jàng bépp balaa boo xam ne mi ngi wàcc ci àdduna wàcc ci nit ñi kuy jàng alxuraan sunu borom mën na ko ca musal kon sëriñ bi yéen nañu lu baax ak bëgg nu mucc moo tax waxtu wu nekk muy sonn ci di digal di diggal ñuy saxoo jàng alxuraan bu ñu toogee ba am juróom-benn weer yu ne ñu dajewaat jàng alxuraan jéggalu yàlla sàkk sarax baloon tey àq ñaa def ko addi sëriñ Touba tey jii nag. moom ci boppam moo tànn bis bii nga xam ni moom lañ ko war a jàng muy juróom-ñetti fan ci weeru rajab bi mu tolloog màggalu poroxaan yi nga xam ni ci la ñuy màggale soxna si mu mel ni danoo bëggal kon ñaari tuyaaba ak ñaari pay ndax boo jàngee alxuraan def ko addee sëriñ Touba def ko addee soxna jaara def ko it ngir ndigalul ki fi nekkal sëriñ Touba te digle ko yaakaar na lañ ci jël ciy pay kenn du xam na mu toll kon moom itam nu ngi profité di ko sant ci loolu bu baax a baax a baax ndax xam na ni bëggal nu xéewal ak bëggal nu jàmm moo tax mu dàkk bis boobu waaye ku ne xam ne ni ak jot amu waaye nag nee na jàng alxuraan des koo ma ne fu ne ma ne ko nu ne rawatina ñaari bërëb bii nga xam ni lépp lu muy def fa la koy tàmbalee muy fee soxna si tëdd ak fii ku baax kiy tëdd bu buñ nekkee fii ñu nekk fii nee na bu kenn manqué na ñëpp génn àllarba ji jàng bañ sëlma tisbaar ñu yewi ko ca poroxaan itam waxtaanee ko sëñ sëñ Basiiru dana fa nekk moo kilifa ya fa nekk yaakaar naa bu boobaa sax kilifa yu baree bari dañ fa nekk ak seen mbooloo ku fa nekk ak sa mbooloo rek fa nga nekk jërut ngay jóge foofa mën ngaa toog foofa jàng foofa alxuraan def ko addi soxna soxna sa def ko addi sëriñ Touba waaye def ko ngir ndigalul sëriñ bi ci bis boobu nga xam ne yàgg baaxoon nañu jàng alxuraan lool lool lool loolu la ci sëriñ bi sëriñ sëriñ bi jublu su ko defee ñu xam ne sëñ Muntaxa moom ñaari yëf yi rek moo ko tax moo moo moo ko yitteel te nañ ko ci jàppale bu baax a baax a baax a baax nañ ko ci jàppale nag mooy lépp lu mu digal ñu def ko fa saasa lépp lu mu tere ñu bàyyi ko fa saasa lu dëgëral diin lislaam ji nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk mooy yitteem lu tax nu mën a jariñoo liggéey sëriñ Tuubaa mooy yitteem ñaar yooyu nag mooy li nga xam ni ci lañ ko war a jàppale ci lañ ko war a euh, góor góorlu ba lim lim ni ci bëggal nu am ko nam nu ko bëggale lislaam ñun ñëpp ko bokk lépp lu fu saa xëyee luy dëgëral lislaam ci lay taxaw liggéey bi sëñ Tuubaa bi nga xam ne moom lañ fi bàyyi ndax sëñ Tuubaa du ku ñuy dimbali du ku ñuy liggéeyal du ku ñuy defal dara ko ñuy jariñoo la waaw nafa nafa an yi wobee yan faxol wara loola ñaar yooyu leen lanu bëggal bëgg diina diina ji di gën a dëgër bëgg nu gën a man a jariñoo liggéey bi sëñ Tuubaa bi kon moo tax ñuy muy muy woote yi ñu woote lépp njàng bi nag yëmalu ko ci dëkk bi rek mi ngi mi ngi koy digal mboolem fu taalibe bi nekk ci dëkk sëriñ Tuubaa yi daaru musti daaru salaam ak dëkk yëpp fenn fi waay nekk fi mbooloom Serigne Touba nekk na xëy àllarba ji yenn doo jàng alxuraan ba jul sëlmal tisbaar euh, ñu nekk ci daayira yi sëñ Xaalid xam naa ñu nekk ci daayira yi sarax yi itam luñ ci man ndax kuy ñaan yàlla danga war a jiital sarax ndax dañoo wax ni balaa ak ay xeeti musiba dara mënu ko fanq lu dul ñaan ak saraxe ñaan ak saraxe moo ci gën a gaawul moo tax sëñ bi dinu dinu ci xirtal kon ñu mën ci sàkk ay sarax yóbbu ko fu ñu ko daan yóbbu ñu def ko lu luñ mën ci ñaan nu nu mu gën a baree moo gën kon sëriñ bi nee na kàddu yi la amoon luñ luñ jottali ko di sàkku nag ci mbooloo mi buñ noppee ci ñaan yi mun a digal ba noppi mu ñaanal soxna si jox addi soxna si jox addi sëriñ bi moom itam ñu ñaanal ko suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ndax jëmm la joo xam ne ji lim sémbal yoon wi sémbal ko sëriñ Touba sémbal ko jullit yi bu àggee ñëpp danañ am saantu daara ak texe ak àdduna ak àllaaxira suñ tey dana baax ni suñ démb baaxee woon suñ ëllëg it dana baax ndax suñ teyee koy baaxal ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp du ñaan ñu fekke ko te tal ko te mu yàgg nu ko digal ñu yàgg jëfi ndigalam noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa kon ñu maase bàyyi ci xel rek àllarba ji di ñëw di juróom-ñetti fan ci ndeyu koor wi muy rajab eh, tolloog ñeenti fan ci weeru mars sëriñ bi bëgg eh, di ko digal murit yëpp te di ko sàkku ci mbokki jullit yëpp eh, buñ xëyee ñu jiital tuubal suñu borom jégglu ko balonte ay xaq eh, sàkk ay sarax te jàng alxuraan kem suñu kàttan eh, jublu ca jaamu suñu borom tabaaraka wa taala waaye def ko àddiyeey Serigne Touba def ko àddiyeey soxna jaaratullahi bu so kon Serigne bi mi ngi ciy soññee bu baax a baax a baax a baax ndax sëriñ Mamor wax na ko waxtu nekk jamono laaj na ko jamono yi ñu tollit baaxoo woon nañ di ko def waaye ku ne xam na ni eh, ay mbas ak i nattu mu ngi ci àddina bi ñëpp fasaale ci eh, suñu boroom wayefal ko musal ci taalibe yëpp musal ci jullit yi te musal ci sax mbindeef yëpp eh, kon sëriñ baa ngi ciy soññee bu baax a baax a baax bëgg nag ñu jiital ca sàkk ay sarax bu dee fii ci Touba njàng mi ci jumaa ju mag ji lay tàmbalee kon sarax yi dem ci jullikaayu ayit bi yeneen barab yi ci des desit fu ko mbooloo may defee ñu yóbbu ko fa suñ noppee jox ko way aajo woo ya fa ñëw naka noonu it di soññ nit ñi ci waajal ay ñam ak ay ndox ngir taxaw ña nga xam ne ñoo fa nekk tey xëy di jàng ba tisbaar jot loolu it moo xam muy fii ci Touba mu tàmbalee ci jumaa ji ba ci bépp barab boo xam ne mbooloo maa ngi ko fay defee waaye beneen barab barab yi yi gën a aju ci dëkk bi muy daaru salaam daarul moxti njaaréem ak fépp fu kër Serigne Touba nekk moo xam muy ci biir réew mi ak bitim réew daa daayira yi fu ñu nekk waaye fu mbooloo yi dajee rek rawatina nag ci daara yi ñu euh, ñu ñu fa fa ñuy dajee ñu xëyee ko te bàyyi ko xel nii ko Serigne bi santaanee kon sëriñ baa ngi ciy soññ ñëpp euh, ñu di ko ci ñaanal bu baax nag fan wu gudd ak wér. waaye ku ne xam na ne weer wi day weeru sëriñ bi ndax gannaaw bu mu dajeeg bisub soxna soos ba noppi ku ne xam na ni eh, bisub cheikh Mouhamadul Fadel ci la nekk bisub cheikh Abdullahi borom dër bi ci la nekk ak mbooleem njabootu sëñ beeg way daw la yëpp rek ñu fasaaleel leen ci ci njàng moom yi ñaanal leen tawféex suñu borom ak ndimbalam kon àllarba juróom-ñetti fan ci weeru rajab dëppook ñeenti fan ci weeru mars sëriñ baa ngi ciy soñ ñëpp rawatina. borom daara yi ak barab yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mooy barab bi nga xam ne fii la sëriñ bi santaane liggéey bi day barab bu tedd di barab bu ñu warmaal ñu gën koo sàmm gën koo warmaal ci liggéey bi nga xam ne moom la fi sëñ bi sant wax nañu ne ku ko mën na nga waajal ay xéewal indi ko fi xéewal yi nag nam daan demee rek lay demee sàkk nañ ay ndaw yu fa teew yoo xam ne xéewal yu ñu indi buñ ko tegee seen loxo dana àgg fa mu war a àgg lañ daan mm, laabiré bokki jullit yi itam ak bokki taalibe yi moom lañ ne di laabiré ba tey nañu moytu di ñëw di tasaare ak a séddaleel seen bopp ci barab bi ndax day indi ak taq day indi itam ay niin niin te loolu mën naa indi ay jëll te jëll yi mën naa indi ay lor mm-hmm. loolu rek moo tax ñuy sàkku ci ñoom ñu di ko dajale ci benn barab am ñoo xam ne des nañ ko mën a joxe ci ak dal ak tey ba kenn du ci loru kenn du ci gaañu te ñu xam ne itam lu jëf am am am solo bala moo am balaa solo sa balaa borom a mën a jariñoo solo sa day fekk mu jaare ko ci ab yar jaare ko ci ay teggin kon nag ginnaaw lii barabu ñaan la di waxtu ñaan ña fay daje itam la ñuy def di ak ñaan moo gën a laaj ay teggin kon nag nañ làmboo ak teggin yi nga xam ne barab bi laaj na ko làmboo itam ak teggin yi nga xam ne waxtu wi ko li ñuy def laaj na ko làmboo itam ak teggin yi nga xam ne ñi koy def laaj nañ ko yooyu suñ ko boolee rek danañu mën a jariñu ci li ñuy def lépp te moytu nag surtout sëriñ daara yi nga xam ne ñooy ànd ak i gone ñu waxtaan ak ñoom doon gone te wut a bëgg lu baax bu ñu agsee ñu ànd ko dal bañ a dàqe bañ a fut fut ci biir mbooloo mi jigéen ñi itam ñu moytu jaxasoo bu baax a baax a baax sàkk nañ ay barab yoo xam ne jigéen ñi fa la ñuy toog di jàng ku bëgg a jàng tey jigéen mën ngaa dem ca barab yooyu bokk na ca fi sëriñ soxna maam Marème di nekk moom Cheikh Mouhamadul Mourtala ak yeneen daara yi nga xam ne itam ñu nekk ci biir jumaa ji muy mbaarum sëriñ Mourtala mi ak biir jumaa ji ci yokk yi itam am na ci ay barab yoo xam ne fa la jigéen ñi di toog di jàng ñu sàmmonteeg yooyu ndax jaxasoo bi itam doonul la gën te sëriñ bi itam yàgg na ko bañ lool. digal laa ngi noonu njàngoom alxuraan lay doon ak njàngum xasida mu war a doon àllarba la 4 mars yemoo ak juróom-ñetti fan ci weeru rajab ñuy xëyee jàng alxuraan ak yem laaj yëpp waaye sëriñ bi fàttaliwaat na képp koo xamante ne bii sàkk saraxit da cee war a da cee bokk kon ñi ne ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew. lépp lu ci waay man nga def ko te boo ko defee nga tënku ci ndigal li nga xam ne moom la mu matul muxadamatul ma joxe njàngum alxuraan mi ak njàngom xasida mi ñooy àndandoo ci bëccëg bi ni ko sëriñ Mamoor waxee sëriñ Amsatu jiitalee moom mu jiital yi noonu it lañ koy defee ca Poroxaan di ko defe ci Njaareem di ko defee ca Daaru Salaam di ko defe ca Daaru Moxti di ko defee ci daaru goo xam ne sëriñ Tuubaa tax ñu sanc ko waaye di ko defee tey ci bépp barab boo xam ne barab bu jullit la ca borom bëgg lu sëriñ baa ngi ciy woo ñëpp kon bisub ñaan yàlla la bisub tuub delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala yàlla musal ñu ci ndog yi ak pakk yi musal ñu ci balaa bi wàcc yàggal fiit ma Touba mun Mahmadul Muntaxa ba naalam yëpp àgg wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.